ci Mansour Mbaye social bu mag bi président des communicateurs traditionnels am na lu wax ñu seete ko. xam naa ma jaaga Fatim Ngoone ndaana nangi naa sa jikko xam salaam maa ngi laa gërëm di la sant ci dalal bi nga dalal. jërëjëf mbokk yi. ginnaaw ba noo sant yàlla julli ci yonent bi yi ñaan yàlla réew mi yàlla ci yàlla yokk jàmm amiin amiin waaye tey nag mbokk yi dañu invité sunu bàyyi dañu invité sunu xarit kii nga xamante ni nii l'histoire du ci moom la daje papa maa ngi lay maa ngi lay fay contentement bu mm-hmm. li ma dalal ci fi nga xam ne mooy Télé Futurs Médias mm-hmm. fi nga ma dalal nag sa dëgg-dëgg-dëgg su fi ñëwee dama fay war a ñëw mm-hmm. su ma fi ñëwul tamit dama fi war a ñëw. kon ñoo fi warala ci man. dëgg la wax dëgg yàlla papa wax na ko léegi léegi ñëwum fii groupe Futurs Médias ah lu war la ci moom waaye papa actuellement ci biir réew mi ak biti réew dafa am mbas moo xamante ne nii wax dëgg yàlla dafa daanu suñu kaw papa noonu nan nga jàngatee mbas moom. xanaa di delluwaat suñu xel suñu borom. Mm-hmm. di delluwaat nag day sens dëgg dëgg dëgg xam ne yàlla suñu borom moo moom àddina. moom moom àddina mhm. te moom moo sàkk doomu aadama yi mhm. nañu delluwaat suñu xel suñu borom bu ñu ko defee rek wax dëgg yàlla sa dëgg dëgg dëgg lépp dana sotti loolu mun na bañ a jóg dëgg la wax dëgg yàlla bu ñu delluwaatee suñu xel suñu borom tuub jàkkal la suñu borom kañ ko jiin ko wax dëgg yàlla mbas mi mën naa mën naa tuxu waaye papa damaa gis ni wax dëgg yàlla mbir mi ba mu dugg si ba léegi kilifa diini yi jóg nañu kilifa aada yi jóg nañu te boobu ba léegi it bàyyi woo Sénégal yi ci ngi ciy dugal sa kàddu tolluwaayu Sénégal la wala yow sa wàllu bopp da ngaa war a jug taxaw wax senegal yëpp war la diglu ni réew mi tëddoo la ndax Sénégal benn bopp la te kenn mënu ko xaar ñaar. dëgg la. rôle communicateur traditionnel. mooy jottali xibaar boo xam ne dafa jóge ci nguur. wala mu jóge ci kër ëttu mu jóge ci koo xam ne dafay jottali xibaar boo xam ne. bu ko joxee communicateur traditionnel muy gëwel di jottali en essence dëgg dëgg dëgg taxawaayam mooy fexe ba xibaar bi toq ci nopp ku ne. waaye nag bu yàlla dogalee nag mbas bi wàcc ñun suñu wareef ñun communicateur traditionnel yi. mooy bokk ndey bokk bàyyi kenn ku nekk fa nga féete nga tasaare xibaar bi waaye nag xibaar boobu nag na nga koy tasaaree mooy la nguur dëddee ak ni kilifa diine bëggee nga jottali ko noonu te bañ cee yokk bañ cee wàññi ndax loolu mooy solo. dëgg la bañ cee yokk bañ cee wañ loolu mooy surul sunu bàyyi wax na ko léegi léegi waaye papa duñ la fitee nag mbay billaay duñ la fitee waaye dafa am kàddu goo xamante nii rek damaa bëgg jox la ko pour nga dig ko Sénégalais yi sunu président Macky Sall wax na li barki dee moo njaay noonu raxas loxo yi nanu sorante diggante yi bañ a xumba xumbaay ak rumbaay yëpp ñu teg ko ci suuf papa la nga jàngatee loolu. xanaa ndeysaan dëgg dëgg dëgg am mbégte ak contentement bu ndax le président de la république le président de tous les sénégalais di Macky Sall li nga xam ne dafa tombé moom mu aaye. du loo xam ne moo ko sàkku. déedéet déedéet. àddina moo tëddee noonu. amoon na fi jamono yoo xam ne. amoon na fi. kilifa diine yi daal di génne ay ñaan ñu ñaan tasaare. buur bu mu san soxla. wax ak askanam. day woo ñi nga xam ne ñoo sës rek ñoom. ne leen lii nga xam ne moom laa bëgg askan bi dégg ko woo leen ma ki nga xam ne moo koy tasaare su ko defee communicateur traditionnel daa lay taxaw ñu nag suñu devoir mooy fexe ba moytul réew mi mbas mi fexe ba moytul réew mi li nga xam ne mooy raam lu ñëw te ndeysaan sa dëgg dëgg dëgg mooy ànd ak li nga xam ne mooy li état bëgg ak li nga xam ne moom la kilifa diine yi bëgg jërëjëf li état bëgg ànd ak li kilifa diine yi bëgg sunu bàyyi wax na ko léegi-léegi waaye papa mënuñu waay mënuñu fay ñëw te du waxtaan ak yow nag ci démb ndax bu ñu xamee démb wax dëgg yàlla yonent bi da nga cee da bay saw laaj. la kon tey mbas bu mu amee nii ñu bugg daal bàyyi nga yóbbu nu démb fàttalikun à l'époque yii nga xamante ni yàgg naa xew ci réew mi waaye nag réew mi ànd ak dal. ndeysaan ndeysaan Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu doomu ñu tedd ga di Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu bu peste bi ñëwee Sénégal. Hmm. kilifa yi dañ dem ñaan ko. doon hmm. ne ko sëñ bi mu ne naam ñu ne ko peste dugg na ci réew mi de <laughs> mu ne waaye lii nga xam ne moom la fi bàyyi bàyyi. Hmm. di xam-xam. bu ñu ko jàngee. jàngale ko xale yi bu ñu ko defee yàlla mën na cee def sutura. xanaa jaar fi ñu doon jaar. boo demee Touba. ci njabootu Xaadimu Rasuul radiyallaahu taala anhu. bind na ay xasaat yoo xam ne bu ñu xëy di ko jàng mën naa dàq lépp loo xam ne mbas la nga dem ëttu Baay Ñas mu bind bind ne am na loo xam ne bu ñu xëyee wax ko mbas ba mën naa dem dëgg la <laughs> ndeysaan xanaa da nga jaarul xanaa da nga jaarul limaamu laay ca Yoof bilaay wallaay ki xooloon géej gi ne ko dellul de géej gi dellu mm-hmm. kooku bind na fi bàyyi fi bu ñu ko jëriñoo mbas bi mën naa dem xanaa xooloo yeneen kër ëttu diine ba ci njabootu Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu taala anhu kenn ku nekk am nga loo bind loo xam ne tey buñ ko xoolee ne san sa dëgg-dëgg jàngal ko xale yi wala ñu jàngal ko waa réew mi yaakaar naa ne mbas mi dana dem mhm. kon nag ci côté diine kilifa yi diine yi bàyyi nañ ko fi de mhm. kilifa yi diine yi wax nañ ko fi de mhm. li ñu war nag moom moo ñu sàmm ko te topp ko te bañ cee dindi benn araf te daal di koy jàngal ñi nga xam ne jànguñu ko état mën cee taxaw sukkandiku pour dàq mbas mi jërëjëf jërëjëf papa wax dëgg yàlla lan la soxla woon wax dëgg yàlla papa waxal nañu ko yóbbu ngu naa à waaye non seulement am na njàngale funtul nii ci xale yi waaye xale mbokk yi sunu baay ji dañ koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam. amiin yokku cëram. a ah, yàggal ko nag ci réew mi. ndax wax dëgg yàlla dafa am tubaab dafa am lu mu wax. li tubaab wax mooy quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui te wax dëgg yàlla sa baay ji toog jar nañu ñaanal ko. sagal ko ci réew mi waaye papa sa doom sa xarit. Youssou Ndour. Youssou Ramadan Fat Codé Marie Sène. Ajaratu Ndeye Soxna Mbow. mooy yaayam. Alaaji Elimane Ndour mooy baayam. boo demee dëkk bu ñu naan Pofoon. génn fi nga xam ne mooy région de Thiès doo daw ay kilomètres. seen dëkku baayam ba. dëgg la. Ajaratu Ndeye Soxna Mbow. mooy yaayam. kon bu yëkkatee nag kaddu. pour taxaw xeex li nga xam ne mooy corona ay baayam ay nijaayam nañ ci taxaw rek. Mhm. de sant dëgg-dëgg rek di la wax dëgg yàlla moom ci wàll boppam génne na solo solongan boo xamante ni jàngal na ko ay mbokkam. waaye jàngal na ko Sénégal yi rawatina groupe Futurs Médias bi nga xamante ni nii bis bu yàlla sàkk plateau yeeg Kouthia Show fu mu mënta doon ah ña ngay annoncé li nga xamante ni nii mooy daan corona papa na nga jàngatee lool xanaa rek wax ak corona. wax ak. ne ko géwél yaa ngi may clamé de. Mhm. surtout. géwél ñu ngi may clamé. Mhm. ne ma Hadj Mansour Mbaye dematuñu ngénte. dematuñu ngénte bilaay wax nga dëgg. dematuñu xew. bilaay mbay wax nga dëgg. yëglate wuñu tàkk. bilaay mbay wax nga dëgg. dematuñu laabaan. bilaay mbay wax nga dëgg. te nag. Mhm. ñu ngi jëm ci ñu ngi jëm nag ci xew mag. muy ban xew-xew. mooy bés bi gën ci bés yi weer bi gën ci weer bi mooy weer nga Ramadan. ah sama bokk géwél yi nga xam ne ginnaaw yàlla yonent bi seen kàddu lay am ah corona xanaa ndeysaan sa dëgg-dëgg sa yaram dana daw. ah yaakaar naa ko. ah mhm. xanaa xamoo ay sénégalais ginnaaw yàlla yonent bi seen làmmiñ lañ yor. Mhm. boo leen bàyyee dem seeti seen ay géer am wërsëg delloo ko ci kër ga ah, bañ am gàcce de. Mhm. bañ sàcc bañ fen bañ nettali. bañ agressé bañ def naka sul loolu war a jël seen lamine di jël nit di ko delloo ci fi mu doonoon ay cosaanam mhm. ah dèjà sa dëgg dëgg dëgg xanaa corona sa yaram war daw bilaay sa yaram war daw corona mhm. bés bi nga xam ne Seydi Hadji Malick Sy dama taanoon wu général ba Serigne Babacar Sy Mansour mhm. nga ñëw mu daadee fom bilaay corona dakkal loolu dem Touba Serigne na am mu am bésam ba kaso rajab mu ñëw nga ñëw ñu fomm. Corona dakkal na lool appel laayee ni ñëw. Mm. ndeysaan xalaat su dëgg dëgg dëgg seeram dana daw. maam li maamu laay loolu woote saa yi woote ñëpp ñëw Corona nga ñëw ñu daal di fomm. Corona dakkal na loolu. guddi àjjuma. Mm. jàpp alxa alxames gu àjjuma àjjuma ñun ñëpp ñu daal di daje saafonte. nga daal di ñëw ñu fomm ak julli àjjuma. bi lay Corona dakkal na loolu. ñu la dee na waay. Mm-hmm. monseigneur cardinal Théodore Sarr. Mm-hmm. ne karam bi commencé na nag. Mm-hmm. suñu mbokku chrétien nag ña ngay defar xam ne mooy aada ak ci ngalax fu ñuy war a julee ñu ne ñu ngi nag li nga xam ne mooy carême bi ñu koy waree ca cathédrale ñu ne déedéet du am ren bu ko corona dakk na loolu xanaa sa dëgg-dëgg sa daw ay corona ay corona mbay yaa tëj grand théâtre mhm. ay corona mhm. yaa tëj Sorano mhm. ay corona yooyu yaa tëj yoon bi nga xam ne ci lañ war a dem ziare Seydina Mohamed salaahu salaam gën ngi def corona tëj na ay corona xanaa sa dëgg-dëgg sa yaram war lii boo ko déggee saw naa daw ay corona ana ki ne la am ana Fatou Guewel corona noppale na ko ne ma wayetul ana ki ne la am wayetul ana Fatou Guewel wayetul ana ana Son Seck wayetul ana ana ndaanaan yu mag yi nga xam ne guddi àjjuma war a samedi jàpp dimanche ñoom ñëpp dañu doon way bilaay kenn wayetul mbaay xanaa su dëgg dëgg sa yaram daw corona sa yaram war naa daw le président de Macky Sall hmm. tuddutul laa ilaaha illallaah le président <laughs> de mbay le mbay le jour. ey eh, kenn tukkatul mbay. ana Sadio Mané passe na bal ba Saala. ey eh, footballatul déedéet loolu amul. xanaa dëgg-dëgg war naa daw ay corona ay corona ay.